ci gëstu bi ñu doon def daarul mannaan nee na daa am guddi goo xam ne dañoo reer ba noppi sëriñ tuubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu génn woote ba ñu dajee mu ne am na gan yu fi ñëw suba waaye ku ñu fekk nga tëdd bu mu la jaral jug ku ñu fekk nga taxaw bu mu la jaral dem fenn danañu dikk ba dem bantub xat sax du damm daa di joxe xasiida gu ñuy wax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 nee na bi sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaara lahu nekke jolof mas naa yónnee ñaari fas wax na benn bi naa ci war moom soxna faati ja ba ca des soxna faati kànni ñu fekk ko jolof soxna si nee na am na ku nekkoon jolof ku ñuy wax jaraaf gay naa gaynaago bi nga xamee ne boroom ndar woo na sëriñ bi te moom pël la woon bu bari alal ba xamul kenn ab yoor yoor mu dikk wax ne daa bëgg a gis sëriñ bi ñu wan ko ko sëriñ Tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu ne ko lu doonoon say tànk mu ne ko mooy xamal la kookee la woo ak càgganteem ak dooleem ndax dama dégg ne dala woo te wuy ji woo ma defe ne daa am lu la ump ci moom sëriñ Tuuba ne ko jaraaf sama digganteeg ñooñee dama yaakaar ne am na leneen loo mën a lijjanti lu dul loolu sama diggante ñooñu ngay lijjanti wàllub gémmiñ la dana mokk te dana tiis lu taxul kenn te du am tuuru jaraaf comme mii la yàlla booleel ba nga sonal ñépp teq na leen tey tey jii nag ku am ab sarax bëgg koo saraxe na ko denc diir bu gàtt nga soxla ko jaraaf daal di xàqataay daal dem bi nga xamee ne Serigne Touba xaadalahu laahu maxtaara lahu dem na ci tukki bi ba ñëw njaareem wax nañ ne jaraaf ñëwaat na fa jóge jolof dem di siyaar ji ku tedd gi xaadimal Moustapha kon mbokk yi ñuy bàyyi xel ci site internet bi di 24 actu yi ñu ngi leen di wax ne bu leen di fàttali di abonné ci suñu site bii di 24 actu yi di leen jaajëfal ci topp gi ngeen ñuy topp di leen jox dig daje wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu